ayca jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili Père Birahim mbokk yi ñu leen di nuyu képp kuy safoo wasaare làmb foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen màggal maa ngi ak Père Birahim Ndiaye bu ngeen gisee télé bi nag xel day dem ci jàngat yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci combat yi ñu indi leen combat boo xamante ne combat bu neex la doxoon ci diggante Obeuli ak Émile ak Gomis fële ca terrain gaal gi mu nekkoon journée boo xamante ni keroog gis nañ fa bëre bu rëy rëy rëy loolu waral tey ginnaaw loolu damay bàyyi Pierre mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan ci combat boobu ñëw Pierre maa ngi lay nuyu bu baax. di la ah, ziar jërëjëf. Hmm. bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi sa poche bi nga tudd Wassare Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu yàlla na fekk jàmm amiin yaa rabbi di ñaan ci yàlla mbas mi nekk ci monde bi yàlla na ko fi yàlla jëlee amiin yaa rabbi ba kenn ku ne say activité delluwaat na mu meloon mm-hmm. naatal addina bi naatal Sénégal naatal réew yëpp surtout mm-hmm. réew julli di kontaan ci yéen ñëpp di kontaan ñi nga xam ne it dañoo abonné ci suñu site bii di ñu bëggee quoi te sa xam nañu dañ ma naan jiili sa booy boobu day tubaarkàlla di ma wax tamit vraiment di bëggee suñuy analyse ah vraiment ñu gis fii tamit tubaarkàlla gars yi di ci dox loolu bari Hmm. surtout Europe muy am Amérique France Angleterre. ñëpp fulaatuwaar hmm. kàlla. Hmm. surtout France tamit. waaw kon nag maa ngi nuyu ñëpp def kàddu ñëpp. di nuyu Bamba Seye maa ngi lay nuyu di la ziar. di la ñaanal di la di ñaan Issa Diène. waaw ñoom Bijal ñoom ñëpp xale yooyu ne États-Unis yëpp maa ngi leen nuyu. waaw di nuyu nag euh, Lac de Guiers 2. Lac de Guiers Hmm. waaw nuyu Jeesi maa ngi lay nuyu di la ziar. Hmm. jërëjëf. Uh, ak ñoom Serigne Kane Italie Serigne hmm. sama xarit. sama rakk moom it maa koy ziar ak ñoom Boy Seye. ñoom Malal Ndiaye xale yooyu sunu xale yu bëri yooyu nekk. Europe yëpp di leen bu baax a baax a baax. Père seetaan nga combat Obali ak ak waaw ah, moom laa seetaan nii sànq. ñu war ci waxtaan jàngat mais Obali bi ma ko xoolee. xool Franc laa xam ne obli mii ah, bu defaroo ko dina tëj làmb ji. Mm-hmm. waaw taay bi baax na tuwaar kàlla. Mm-hmm. boo ko xoolee xam ne kii man mën naa bokk ci ñi tudd ci làmb ji. Mm-hmm. làmb. yàlla bu ko yàlla musalee ci ndox ak seytaane yàlla musal ko ci ndox. fu ñu dugg mbët dees na ko fa dégg. moom ëbbali waaw ngeen yi nag mooy góorgóorlu wut ay garde fou. xam nga mbër dafa am ay garde fou. garde fou mooy lan. mooy am ñag. mooy ñag sa bopp. mooy bàyyi wor. fonk say waajur. nangoo entraîné. tey lekk lu lew. bàyyi wor fonk say ñaari waajur. nangoo entraîné waaw te bàyyi wor. te bàyyi wor. nee hmm. ko entraînement nag. Hmm. boo entraîné ba jàpp da koy ñoŋal. ñoŋal ko mooy di teel a tëdd teel a téye sa bopp. Hmm. téye sa bopp boo dee ba bëgg soxna su la neexee takkal Dakar amu ci dara amu ci. soxna yàqul góor. yàqul mbër. mbër soxna yàqu ko. li bon kay mooy dugg fii tey bu subaa nga def bu subaa nga looloo yàq nit. waaye bu fekkee nga takk yàlla ci farata yàlla sunu Muhammad. ndam rek waaw te jabar wërsëg la mm-hmm. mais ni ma gisee tubaarkàlla comme nag mm-hmm. franc moom wax nañ ci moom ni mu mel mm-hmm. moom it ci bi nga xam ne bii ñoom ñoo topp ñoom moon ñoo ñoom moon loog ñoom Balla Gaye ñii boo xoolee xoolal rek wala booy bi mais te gis naa ci biir bëri bi loo xam ne lii gis nga mbër su fekkee dafa am mënin dafa am fu mu foor am na koo xam ne kii naa am na xam-xam wala am na doole am na kàttan te nga sut ko pare ëpp ko doole wala ëpp la doole bul ko may mu la moom dafa xam ne franc mii xamante nañu xam naa ko xamante ci làmb yi mm. dégg nga li ma te kii su ma ko mayee mu calculer mën naa am lu neex ci man du ko may temps moo tax enchaînement la ko daane. moom ëppale. waaw boobule enchaînement gannaaw dem mm. ñaareel ba. Mm. gis na xam na li li li li li franc fort ba pare mu xañ ko ko. mooy sànq ci combat mbële ma loxo ca pokkataan ma laal li daw wër. mayu ko ko. may ko fenn fu mu ko bëtti fu mu ko dëbb sol parce que ñaari pied droit yi tegaloo lañ mhm. bu dëbb sol may ko sax fu mu ko mën a sol ba ëñ ko mhm. waaw te loolu fooram la ayca kon dañuy dem indi combat bi Père ñëw mhm. Père ayca ana ëbbali ëbbali ngi nii sunu càmmoñ donc Franc moo nekk sunu ndeyoor waaw ayca ñu léew too gis nga wala léew léew gis nga day euh. kor rek gis nga ni mu sëggee du ko may fenn fu mu jaar gis mu ñëw waaw gis nga gis nga kor euh, gis nga oh, kii nu mu xam nga Franc nu mu waroon def. Hmm. ci kudd bi la waroon téye fii. loxom bii fii la ko waroon téye. Hmm. rek hmm. xoolal flexion lay def rek joow loxo bi wàcc tibb ko. kooku façon somb la. kooku xam naa ne Franc bu ko xool dina xam ni ma wax. waaw day gis nga bu ñu koree sa loos nii. da da da ngay sa sa kudd bi sa loxo bi ci kudd bi ngay téye. ay kor ma wan la. su la defee nii. soo ma koree nii nii lay def. nii daal di ràcc taxaw nii nii. gis nga ko nii. nii ngay def. léegi yow lenn rek ngay mën a dindi sa loxo pour jéem a rëcc te boo ko dindee boo dindee loxo bi pour jéem a dindi sama parce que bu ma nee nii jéem a téye sa loxo bi. foog nga jéem a baaje baaje kii wala dara. mais gis nga loxo bi fi ma téye nii. soo koy dindi rek maa ngi wër. fii ngay téye waaw par exemple léegi gis nga damay sëkk rek yow la da dem ma wàcc. moo tax gis nga bu ñu la téyee fii soo bëggee song waa ji hmm. soo bëggee song waa ji foofu ki doo dem xam nga hmm. mën na laa bloqué bii mën naa dem dellusiwaay boo téye fii fii fii boo fi téyee hmm. danga xoolal gis nga kii tànk bi ci ginnaaw lay àndal gis nga moo la xëccee gis nga sa tànk bi li mu jógee. day jóg waaw arrière tuuti kay ma gis la. Mm. xam nga tey bu ñu ah. nekkoon en en <laughs> blouson. arrière taxaw arrière ah, gis nga ne. gis léegi xool gis nga ah. sa mu jóg. waaw xool xam xoolal sama tànk. waaw gis ma téye fii. waaw su ma defee nii. waaw gis nga gis nga xool ni mu jógee. waaw xam nga tànk ba tegootul. day jóg waaw su ma lay joo ngay dem. su may ngay dem. dootuma am équilibre. waaw wala ma xëcc ba tànk ba la jóg ma taf la fii daw yéeg la moo tax fii franc comme coronalos bi rek fii la waroon téye rek ne tekk ba xam lan lay def. Mhm. lu mu yëngu rek mu joo ko wàcc. day joo rek wàcc daw tibb ko. Mhm. tànk bu mu soxla dina ko am. Mhm. te wax naa la sànq ponkal xajoo ci tànk. ayca ñu dem ci dëgg ba gis nga ko. gis nga ba tey ba tey téyewul ci kudd bi. ci loos bi bu ñu téye sa loos rek téyel ci kii kudd bi. sa loos saa ñu ko koree rek téyel ci ñu dem ci combat. ba xool ayca gis nga waaw gis nga ko. enchaînement rek. gis nga ko may ko fen fu mu yekk naa kam gis nga ko mm-hmm. enchaînement gis nga mm-hmm. te teel teel foofu arrière arrière teel ma la plaque bi fii sax fii sax franc amoon na dara mm-hmm. waaw ah, moom franc waaw waaw gis nga fii mooy gis ba mu ko daf ko plaqué daw yéeg ko mm. loxo ba ca kaw da koy yéeg da koy fa da koy jox bu ko franc féloon rek mu dem waaw ko fél mooy kor ba muy téye ba téye bi ma la xoon sànq ma def nii nga kor ba xam nga ni ko kore nii mm. léegi bu yóbboo yootoo sama kii bi rek xam nga loxo bi la yóot gis nga fii mm. gii nii lay def rek daal di daal di def nii gis nga ni mu demee. Mm-hmm. gis nga dem bi. Mm-hmm. Mm-hmm. day dem gis nga bu kare loxo fii. su yootoo sama fii rek yootoo sama tànk rek gis nga. gis ma demee. gis nga ni ma gis nga ko. Ah. waaw. na maa seet naa war yaa ngi dégg gis nga bi ni demee. du gis ko. Ah. moo tax téye bi fii dafa am solo. lu ah. lu riche ci ne. dëgg la suñu koree sa loos rek. su su ma ne leen nii rek téyel nii nii téyel bu dëgër nii nii nga téye. waaw fii avantage bu rëy nga am ne. Mhm. xam man luy sama avantage man. Mhm. daal ne nii kenn. Ah, génn rek génn rek moo ci rëccal waaye ma téye fii nga def nii. may ah. ni ma jox damay dem. Ah, waaw. da ngay flexionné waaw gis nga ko damay gis nga. laay peer damay dem facilement léegi boobu la gaaj gaaj. <laughs> ayca ñu dem ci combat moo gis nga ba tey loxo bi gis nga bu koy fàqat ko indi ayca ñu ñu dem gis nga ko enchaînement rek daw na jëli ko waaw enchaînement rek la mhm. parce que gis nga moom du ko may mm. fenn fu mu yekk naakam ñu dem parce que xam na ne boo ah, teel foofu waaw gis nga gis nga loxo ba gis nga ba tam gis nga fa mu nekkaat ba tey gis nga uh, kii bi uh, franc bi mm. loxo bi fii la waroon ñëw ba tey moom franc waaw loxo bi li ko doon dindi ci loos bi nii mm. mooy téye ci kudd bi nii bu tëddee ci ko nag assuré tànk bi mu mën a bëree nag mu ne ci kanam benn ba mu daa dàq ko fële mm-hmm. bi mu mënta bëree mu ne ca ginnaaw bi mm-hmm. baax bi mën a bëree nag bu téye ci kudd mooy ne ca kanam mm-hmm. loolu moo doon dem waaye gis nga ko. waaye gis nga taf bi xoolal te gis nga taf bi gis nga fii xoolal hmm. Franc ni mu siggee siggi bi baaxul bu siggee rek dootul am équilibre. Hmm. waa ji da koy yëg parce que plaqué na ko ca suuf. bu dem. Hmm. ayca ñu dem demal. plaqué yëg demal demal ci plaqué bu yéeg gis nga mu ko tafee yëg. demal. gis nga jëliwaat na ko. waaw. bi mu ko tafee yëg ko noonu. loxo ba ca ginnaaw fekk ni mu ko yëgee bu flexionné woon nag wàcc nii da koy bu téyewoon kudd bi da koy jox rek mu dem. day fraîcheur pël parce que fii dikk libre nit la. Mm-hmm. bu niroo wala ma corsolos yi boo téye sama fii rek booy fractionné rek di ma yóbbu ma dem. dëgg la waaw. ay ca ñu dem. ñu dem gis nga mu jëlaat ko. waaw da ko jël gis nga ci kaw. ci kaw indiwaat ko ci digg géew bi. gis nga bi mu koy indiwaat bi. Mm, comme téye na ngeen téye na ba mu dëgër nii. Mm. gis nga bi rek lay fii nii waaw. gis nga téye bi mu dëgër nii. Mm. fi mu ne nag xam nga Franc moo waroon def nii parce que waa ji téye na ko téye bu dëgër bu sax. te moom téyewul Cheikh bu sax mais fexe ba a daanu moo doon yoon. moom Franc waaw mën naa fexe parce que waa ji li mu am kii Obali li mu am. Hmm. moom Franc mi amu ko. Hmm. parce que ñaari loxoom defe naa béy bii jàpp na bële jàpp na. waaw yaa ngi dégg de te ñaari jàpp na hmm. moom ñaaram jàppul. waaw léegi nag fii ko ëpp avantage. Obali voilà léegi man damay fexe rëcc. mais père lu ma jaaxal mooy gis nga Obali fi mu jugee. waaw fii la njëkkee jugee. mais daa déplacé wu pour Franc ñëw mu mun ko tànk bi jege si. voilà pour pour boobu xam boobu xam nga li muy wut. Hmm. téye na ñaari ngam li ci dëgg ne fu tànk bi mën koo rof ci xabal bi daw yéeg ko. Ah. foofu tax foog mu déplacé tànk yi déplacé wu tànk yi ñëw ñu def loolu ma ne la Franc fii ci boppam. Hmm. xel bi mu doon def mooy. Hmm. jàpp nañ ko foo xam ne jàpp nañ ko téye nañ ko téye boo xam bi dëgër na te waa ji am na lu mu amul damay fexe ba yow tam may xoolal défense bi lay def rasu rek Mm-hmm. fii nag la rasu baaxee nag boo duggee mm-hmm. ñaan di fa rasu da bàyyi ba jëkkati foo xam ne fii boo fi yàggee dañ may daan ma fexe ba génn ci lii mooy xam-xam nag ay ca ñu dem père xoolal combat bi waaw gis nga ñu ngi noonu waaw ba tey gisoo mu nga téye mm-hmm. gisoo ba tey gis nga fi mu téye avantage la parce que avantage bi yëpp moo ko am fi mu ne parce que ñu dem waaw ñu dem gis nga xëcc ah, bi xëcc ba déplacement pour tànk ba ñëw gis nga tànk ba demal pour tànk bi ñëw rek la tuuti waaw dellu ginnaaw tuuti waaw ñëwal waaw bàyyil. voilà pousse donc gis nga pousse bi yëpp bëgg na mu ko déplacer bu tànk ba ñëw. gis nga pousse na ko. Ah, mu dem waaw ah, xëcc na. Ah, xëcc na gis nga. gis nga mu ngi koy xëcc. da koy xëcc day ñëw. xëcc na ko mu ñëw. waaw gis nga. ñu daal mu dem ñu daal mu dem. gis nga gis nga ñu roof caaxaan gis nga caxabal ba tànk ba mu soxla woon. la bëgg déplacer ba mu ñëw parce que du tànk yëpp ko jubu. du yëpp la ko mën a defee. mais tànk ba mu ba mu xam ne bii bëgg na mu ñëw moom lay déplacer manipuler ko ba tànk ba bu mën a roof tànk yëg ko. mais père combat bi dama ci seetlu Obélix dafa xam Franc parce que Franc pied droite lay jiital mais Obélix ci pied gauche ba la ko caxabalee mu waaw parce que da xam ne du boobu du fooram <laughs> mooy loolu ma la waxoon sax yàgg naa la wax fii ne la bëri soo koy def da xool xam nit ki fi mu fooree fi mu feebale uh-huh. soo xamee fi mu fooree bu fa uh-huh. jaar uh-huh. waaye boo xamee fi mu feebale fa ngay jaar foofu mooy bunt bi loolu mooy xam-xam li mu def xam-xam la de moo tax Obélix daan na ko daal daan na champion nag waaye champion ko daan ñoom ñaar Mm-hmm. Euh, combat ñaari champion ñoo daje. Mm-hmm. waaw Obli de man miinu ma ko mais ni ma gisee nii. Mm-hmm. Euh, ak bëri bi mu def nii. ak mbappa yi mu def nii mën naa am lu ne ci làmb. mais Obli est ce que est ce que est ce que Obli père. Euh, bi mu daanee franc. dayo bi mu am taay bi mu am ci làmb. war naa mën a ndamoo loolu. daan fa waaw mais mais ku daan champion damoo ko. champion mm-hmm. du tuuti. Mm-hmm. Mm-hmm. yëtëb li mu def ci ci bëri dóor bi. def ko ci drapeau chef de def ko ci ay kii tournois yi. waaye itam ku ko daan damu de. Euh, euh, franc. ku ko daan am nga ndam. war naa mën a dama du question dama bi de. xanaa kon caaka fay ku mu daan wartu daan baax ko. déedéet. <laughs> Ah, waaye itam loolu <laughs> kon daan doo baax daan champion ponkal te ki mu daan nii. Mm. ki ko daan nii champion ko daan moom champion ko daan. démérité wu ñoom ñaar yëpp de kenn mm. démérité wu ci mm. ku ci nekk bëri nga bëri jom ba bëri daanu parce que bëri noonu la mm. parce que obili mii tamit ma gis nii ah su fonkee làmb tamit te góor am lu bari lu mu jàng nag am lu mu jàng parce que wax naa la ay fin ay fin yoo xam ne yi moom la kii euh, franc bi def waaw kor booba ci looso day téye ci kudd bi waaw plaque ba daw yéeg bu téyewoon ci kudd bi day ràcc tànk bi ci ginnaaw rek féer ko daw sentir ko yooyu yëpp ay xam-xam la waaw yooyu yëpp xam-xam la. mu mel ni ñoom ñaar ku ci nekk compétition yi mu ngi des ci kanam. waaw mu ngi des ci kanam. Hmm. bi combat desul seen diggante yenn hmm. combat dina hmm. ah, ah, bu dee lu bon bon nga lekk 1 million 500 wala 1 million 800. baax na de man ni ma gisee xale yëpp ñëw keroog dugg ci arène bi di dugg ci tournoi yi dina ñëw ci tournoi yi parce que tournoi yi mooy li nga xam ne mooy di jàngal bëri mooy primaire bi. primaire bi da da ngay ñëw ci première bi lu ñu la daane tey bu subaa nga fexe ñu bañ la cee daan loolu mooy xam-xam bi hmm. waaye tey ñu di la ci daan ci benn feem di la ci daan ba suba avancé woo waaw te ci ku ànd ak nit it da nga koy mën a yokk hmm. mu daan ba pare nga ne ko daan daan nga mais erreur la kaay wan la erreur bi mu wan la erreur bi boole gi nga bañ koo def yooyu mooy xam-xam yi hmm. waaw parce que ku mel ni ndóoy moomu dinañ ñëw ci waxtaan ci combat bi ñu ko daane mooy booy face boobu waaw ah, mooy Serigne Ndiaye ah, numéro 2 parce que taay bi ma am tamit. Mhm. moom ñoo ma bëri ñi ay classe am lañu. Mhm. ñoo bokk génération ñii. Mhm. waaw te keroog ni ko kii daane noonu. saax saaxee ko daw ko daal noonu. tey seetaata loolu loolu war na xool toogaat xoolaat boppam. xam ne des na de. waaw. kon loolu dinañ ci ñëwaat. waaw lay jaajëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf kontaan naa maa la raw yow tam. <laughs> ñaan yàlla yàlla bu mu suñu mujj daje rek. amiin waaw te addina moom noonu la. Eh, kenn ko ne da wax la nga xam rek. xëy na li may wax nii ah am na ñuy seetaan kan ma koo xam. Mhm. Ah, luñ ci juum ah, ngeen xam ne nit doomu aadama la rek. lu mhm. luñ ci baax it ah, ñu sant ko yàlla rek. Mhm. noonu rek la. jë jërëjëf parce que kontaan ci yow yooyu vraiment. tubaarka léeg-léeg la nga sànni ma xeer. <laughs> du ma la jàkk waaw ma sànni xeer léeg ma xam ne sama sama doom ay doom may sànni xeer rek <laughs> waaw. waaw sànq de maa lay sànni xeer nga jàpp ma. waaw bañ a jàpp ma la doon jëw ma sax tey ñoo ngi jàkkaarloo waaye ma xam ne yow say mbir noonu la rek su ma la déglu ci reportage bi damay ree ba tas. dëgg la ndeysaan. jërëjëf jërëjëf. Père Birahim kon nag ah. mbokk yi seetaan wasaare làmb Père Birahim la woon bàyyi Jili ñu leen di tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba la incha ci beneen jàngat làmb jëre ngeen jëf